production euh, Jibi Gueye Ndiaye mi yor sama protocole euh, Babacar Ndiaye mi toftal ci moom ni Ibrahima Thiam euh, ñu am mbégte ñëw ci doxu nemmeeku doxu cant doxu ngërëm waaye yit doxu waxtaan ak càmbar li ñu bokk ñun ñëpp te kenn tànnalu ko boppam waaye yàlla ñu ko tànnal kenn ku ci ñun muy réew mi eh, nee naa am nañu mbégte trop donte contexte bi ñu toll nii du contexte mbégte ndax li fi xew ñëpp xam nañ ko li ci am ci tolof tolof eh, jëmale ci peuple sénégalais bi ñu ñëpp gis nañ ko muy ay bàkkan yu ci rot te ñu koy jooy ba tey te gisaguñu lenn lu ñu def pour leeral mbir moomu muy kuñ ci caabi féete gannaaw muy ki ci gaañu it te yenn gaañu gaañu yu métti ñi dagg nañ seen tànk ñi ñàkk nañ ci bët loolu di lu diis ci ñun di tiis bu rëy rëy rëy jàpp naa ne nag am na ñoo xam ne yéegaluñ ko seen yaram ndax ci jo boobu jamono bu ñu mënee dajale ay dizaine yi dizaine millions pour dem taxawal ay meetingu dànkaafu mooy ñoom yéegaluñu loolu seen yaram waaye ñun naqar googu mu ci ñun ñu koy dund waaye loolu teewul ñu am bànneexit walla mbégte ci teew fii ndax dañoo ñëw fekk si suñuy frère ak suñuy sœur dañoo ñëw fekk si suñuy wëllëre dañoo ñëw fekk fii ay nitu gor ay nitu ngor ay nitu dëgg ay nitu fit ay nit yoo xam ne senegal lañ jiital ci leneen lu dul Sénégal te loolu nag dafa méngoog ñun suñuy gëm-gëm ak lan moo ñu tax a xeex ñu ñëw nag ci cadre dox yi ñuy dox fan yi yëpp tànk yi ñuy dox tànk fan yi yëpp jublu ci ñi nga xam ne jotoon nañu taxaw suñu wet waaye gëmu ni sax suñu wet lañu taxaw dañoo taxaw ci wetu askanu Sénégal dañoo taxaw non pour jëmm Ousmane Sonko waaye dañoo taxaw pour li nga xam ne suñu tey la waaye suñu ëllëg la ñun ñépp te ay nit fas yéene woo fas yéene ci teg loxo ba kenn dootul am sañ-sañ fii ci biir réew mi waaye bu dee li sabab loolu li tax taxawaay boobu gën a mën a fës parce que lu yàgg am la waaye dafa fës dafa gën a fës ci ñaari weer yi ñu weesu li tax mu gën a fës mooy circonstance bu taxaw te circonstance boobu yàlla nattuñu suñu jëmm suñu tur ak suñu organisation doon ci benn élément bu am solo moo tax ñu ne léegi damay faral di wax ni ku def li mu war a def ngir réewam ngir réewam ngir askanam matul ñu koy sant parce que kooku dafa defal boppam dafa defal doomam dafa defal sëtam dafa jaamu yàlla waaye lu ñépp war a taxawee bu ci tumuranke amee ba ñenn taxaw ko ñooñu dañ leen di jaajëfal muy benn donte ci lii sax gis nañ ni am na ñu ko gënoon a yëkkati am ñu ko gënoon a téye waaye ñépp taxaw nañ ci ñaareel bi mooy it te nañ koy defee ci anam gi parce que jaajëfal bi war naa doon lu mun a soññ keneen ak keneen ak keneen ba ëllëg mu xam ni àdduna du rekk lu may def walla lii ma war a def lan laa ci am man sama bopp waaye léeg nga jóg def ngir yàlla kese nga jóg def parce que réew mi la kon loolu tax ñu ne dinañ ñëw ne leen jërëjëf parce que Sénégal yépp a gis seen taxawaay bi ñépp nag mouvement bi defe naa mouvement bi organisation yi ci bokk yépp kenn mënul natable kenn mënul douter ci seen engagement ci xeex bi nga xam ne c'était pour la démocratie sénégalaise c'est pour nos droits et nos libertés ba taxit li tubaab naan vous vous avez payé un lourd tribut mooy am na lu ngeen ci daj loo xam ne ba léegi ñu ngi koy dund ndax tey jii defe naa bo bokk nañu bokk ci seen coalition bi euh, caabi féetewu na leen gannaaw ba tey lañ leen di déglu muy Amadou Clédor Sène muy euh, Assane Diouf muy sax Ousmane Tounkara parce que maa ngi gis fii one million marche nga xam ne xeex bi moo ko indi lii ko dal te ñu defoon ko Assane Diouf ba tey fee ci États-Unis teg nañ ko loxo ñu koy massaw di masawu ay jegeñaaleem di masawu ay mbokkam te di leen wax nag ni ni ñu amee solidarité ci xeex bi ci lépp lu ñu doon dee noonu lañu amee solidarité ci li leen dal nii dafa fekk suñu pexe eggul États-Unis waaye noonu lañ ko amee ak ñoom kon ñu gis nag ni non seulement taxawaay bi rafet na euh, jëmbal ngeen Euh, dignité ngor fit fulla ak bëgg sa ci seen taxawaay yow mi nga xam ne tey yaa leen toogal euh, keroog maa ngi tooñ naan man léegi Ousmane Sonko Mbodj laa tudd ndax ñaari Mbodjeen euh, di sama abokat sama yaay sama xarit di Aïda Mbodj ak yow mii Dame Mbodj te defe naa seen taxawaay leeral na lu bëree bëri bëri bëri ci Sénégal yi lu ëpp sax gëm naa ñi ma bokkal parti ci seen taxawaay te boobu jamono defe naa suñu gisee tey su doon su dul ñetteel bi ñeenteel bi la ndax miinante wuñu mosuñoo toog waxtaan mosuñoo tëju ci néeg mosuñoo nas ma ak yow lenn kon loolu dafay firndeel Sénégalais yi nii duggoo ci woon pour parparloo wala parce que dafa am doo séq ak Ousmane Sonko déedéet danga cee dugg par conviction donc ñu lay gërëm di ñaan yàlla moom mu am fay mu fay la noonu nga ci taxawaay nee naa ñi bokk ci mouvement bi yépp ñoom Abdou Karim Gueye gis nañ liñ ci daj yow sax def naa jot ngaa mos benn 48 heures waaw mais euh, waaye bu ñu nee élèves yi léegi ñu génn ca lañu gaaw ne kii suñ ko jàppee musiba am waaye ñoom Abdou Karim nitu dëgg gis nañ liñ ci daj. Hmm. donte euh, léeg-léeg wér gu yaram ñàkk wala yu demee noonu. Hmm. ñu jël ci ay risques yoo xam ne. Hmm. macha allah ak keneen ak keneen ñoo xam ne bokk nañ fii. ci seen mouvement bi waa Petro Tim la ñu liggéey ci mbir mi ci communication keneen ak keneen mënuma lim ñëpp kon sëñ daam ñu ngi leen di gërëm di leen wax ni nag euh, lii dafa wane ni contrairement à ce que ñu ñu ñi ñu doon wax ba ñenn ci ñun sax daan nañu à des moments parce que nit ku nekk dafa am li tubaab wax des hauts et des bas mais léeg-léeg nga dem sonn ci xeex bi sonn ci xeex bi sonn ci xeex bi ba du ma ne doute du doute mais c'est des moments de baisse da nga naan est-ce que askan wi sax jaar na di est-ce askan wi parce que ñu ngi wax ñu ngi dénoncer ñu ngi wane li xew indi ay preuves yépp mais askan wi du yëngu mais lii dafa wane ndekete luy askan ci àdduna du ma ne ñoo ñoo ñoo ñoo sut askan ñëpp de waaye kenn sutuñu fii Sénégal askan wu màgg a màgg màgg la am askan wu diñ askan wu gëm ay principe ak ay valeur te loolu kenn ku ne ci ñun dafa juddoog loolu parce que dama naan les valeur amul fu ñu ko théoriser plus que le Sénégal ñun ñëpp bi ñu nekkee xale ba léegi dañu naan jom fulla kersa kóllëre fit et cetera c'est rare nga gis feneen ci àdduna lu ñuy répéter les les les vertus et les bonnes valeurs ba tax li leer ba leer mooy on a un très grand peuple mu des nag on n'a pas de très grands dirigeants loolu mooy problème Sénégal suñu peuple dafa jiitu foofu dirigeants yi waaye dafa jiitu foofu sa classe politique suñu peuple dafa raw sa classe politique ndaw ñii di rey seen bopp génn xeex nee naa la am na démb ñu ngi ma envoyé photo ko xam mooy fi ma bëgg a dem faja 10 ans la am ñu ngi ko door bal ci bët bi ci ñu ñu rey ki ci gën a néew at 12 ans la am kon ndaw ñooñu di jóg mu jaral leen ñu génn xeex ba ci ndaw ñi di jël gaal di dem ci géej gi ñooñu dañoo am fulla dañoo bañ gàcce ñooñu ku leen jàppale ñu dem ku leen jàppale ñu tabax réew mi ci kaw nag ñu am ay dirigeants yoo xam ne ay patriotes la ñu gëm seen réew alalu réew mi ñu téye ko ci réew mi delloo ko ci askan wi ger jeex fi détourné xaalisu réew mi jeex fi ñu tollale Sénégalais jox leen leen mêmes chances ku ko def ci diir bu gàtt gàtt gàtt ñu defar réew mi mais am ay dirigeants yoo xam ne bis bu ne nga signé loo xam ne bitim réew bu ci amee. Euh, ci téeméer bi bitim réew bu ci bu Sénégal bu ci amee bu ci amee ñaar fukk euh, bitim réew am fi euh, juróom-ñetti fukk loolu ba kañ alal réew mi yëpp ñu génne ko ci réew mi la ca des di rosit ñoom ñu seddoo ko entre ñoom yor seeni xaalis bu dul jeex koo ci gis tey ay immeuble la yor yu rag na ay kat ay ay ay ay parkingu kat katam gis nga dem rek ba ñuy dem naa ne ngay dem meeting gis nga la fa kon loolu mooy problème mu Sénégal te gëm naa ni ñun ñëpp am nañu yëg-yëg bi kon la ñuy xeex du pour tel parti politique wala tel homme politique wax naa ko barki dem ci Thierno Bocoum nous on ne pas de fixation ki yàlla nar a fal moom rek a ko xam. Hmm. nit bu gëmul yàlla mooy foog ni moom mooy fal boppam dellu si gëm ni mën na fee toog ba saa su ko neexee wala ba dee fekk ko fi loolu amul fenn ci àdduna. lañuy xeex ñun ñii ñëpp pour réew mi la kese te nañ koy xeexee it dama wax sànq principe bu justice ak équité injustice réew mi mu am wax naa ko ci sama benn discours injustice moo gën a métti dund sax que xiif walla mar walla dëkk ci sedd bi parce que ni nga koy yéegee ci sa yaram noonu ko koy yéegee ci sa xol méttitu xol ak ce sentiment d'impuissance mu leer ni kii warul warula mun a imposer lii parce que du loolu mooy yoon mais mu imposer la nga koy dund mooy li ñuy gis ñun ci suñu réew yi am na ci enseignement bi defe naa benn yoon bi ñu njëkk a gisee su ma juumul est-ce que du woon conférence bu enseignement yi doon def enseignant yi doon def CUSEMS ak ñële ma leen koy defal ma leen ko doon defal sur l'inéquité et les injustices dans le système de rémunération de la fonction publique boobu jamono maa ngi jiite syndicat des impôts dama yàgg wax ni d'accord ci injustice yu am ci réew mi parce que fonction liggéey bu gën a noble enseignant ak médecin wala enseignant ak kuy faj moo xam médecin la infirmier la wala leneen amul ci réew man di nekk naa aw fonctionnaire pendant des années leer na ma ni li enseignant bi di daj man dajuma ko leer na ma ni médecin bi lu muy daj man daju ma ko moo tax dama yàgg liggéey ak syndicat enseignant yi dama yàgg poser ces débats boobu xalaatu man damay dugg politique chaque fois ma fàttali ni sama mémoire sorti ENAM benn dédicace moo si ne à tous les enseignants du Sénégal parce que dama xam ce que je dois à ces enseignants ndax dama ne woon élève bu xaw a tëri dina waaye boobu enseignants yi ay pères de famille la ñu woon dañu toog ni kii am na talent duñ ko seetaan mu yàqu ñëw gis sama waajur ne bàyyi kook ñun jël ma comme seen doom kon je sais ce que je dois à ces gens là kenn ëpp leen mérite ci réew mi te gis nañu système injustice bi am barki démb rek gis ngeen ñu signé décret jox ay nit ay ay ay avantages yoo xam ne euh, enseignants yi suñu laaj laajee dix mille francs ñu ne leen du fi amee parce que da ngeen bëri donc day masse budgétaire bi day yokku keneen ñu mun a xëy jox ko cent mille deux cent mille trois cent mille ci ci ci te fekk moom li mu yoroon déjà mën na fay ñaari enseignant wala ñetti enseignant yooyu injustice baaxul ci réew mi waxuñu ko par démagogie gëm-gëm la kon sëñ daam ñun loolu lépp la ñu bokk di ko xeex moo tax ñu mën a parce que li tax Sénégal jafe jëf mooy ñi nga xam ne ñooy yàq réew mi dañoo am lu ñu réussir mooy ñi jóg ñépp pour xeex pour des valeurs de manière désintéressée ku ci yëngatu ñu ne la yow politicien déguisé nga hmm. d'accord politicien déguisé politicien la lan moo nekk ci politicien su dee politicien dafa aram kon moom mi lay politicien nga te moom muy politicien kon moom lu mu doon parce que nous sommes tous politiques il y a pas d'homme ou de femme apolitique chaque jour ma wax ko ni su ma nee je suis ma ne kon doo nit <laughs> parce que la politique c'est s'intéresser à ki dem marché jë mélangère bi dem marché jënd li muy jënd ñëw ne ah dëkk bi de métti na 10 000 francs la yóbbu delloo si ma weccet mi ngi politique parce que mi ngi wax ci tolluwaay réew mi on peut ne pas être partisan non partisan moo am mais apolitique amul nous sommes tous politiques l'être humain est fondamentalement politique parce qu'il s'intéresse à son environnement la politique c'est la les gérer les choses de la cité kon yooyu mooy yi ñuy utiliser pour complexer nit ñi yow daal politicien déguisé nga yaa tey moom mii politicien affiché na dem nit mun na ne bokkuma ci parti bi bokkuma ci parti bi bokkuma ci benn parti waaye je suis politique parce que je m'intéresse à ma cité te ni ma nekkee politique nag ku am le même valeur et qui défend les mêmes principes que moi quelle que soit la forme d'organisation bi mu jël war naa mun a am fu may dajeeg moom bu ko jaree ñu wax ci réew mi bu loolu jeexee nag kenn ku ne am na indépendance am ci moom nu mu organiser wu. moo tax il faut ñu décomplexer sa débat là parce que ñoom loolu la ñuy réussir ba kenn ku ne danaan ah man de du ma jege Sonko parce que su ma demee dañ naan politique ah man de du ma jëmee jege daam parce que dañ naan euh, maa maa nekk ci gànnaaw activiste yi ça il faut que mu jeex tey il n'y a qu'une seule préoccupation qui doit nous Sénégal encore le Sénégal et toujours le Sénégal.